Matthieu saar ñaar. amoon na benn bisu noflaay yéesu jaar ci ay tool yu ñor fekk ay taalibeem xiif ñu daldi fàq ay gub nag di lekk farisiyen ya nag gis ko ne yéesu gisal say taalibe ñu ngi def lu jaaduwul ci bésu noflaay bi noonu Yeesu tontu leen ndax jànguleen la Daawuda defoon ba mu xiifee moom ak ña mu àndaloon xanaa yëguleen ni mu dugge woon ca kër yàlla ga gis fa mburu ya ñu jébal yàlla mu daldi ko lekk fekk jaaduwul mu lekk ca moom walla ña mu àndaloon saraxalekat rekk ko sañoon a lekk te it ndax jànguleen ci yoonu musaa ne saraxalekat ya ca kër yàlla ga teraluñu bisu noflaay bi te tooñuñu waaye maa ngi leen koy wax am na ci seen biir ku sut kër yàlla ga